syndicalistes yi nga xam ne ñu ngi ci ñaari at ci tey ma leen di ñaan ñu may gouvernement bi mu yegg si ndax kat nit buñ ko bu aw askan lëmb dajaloowee ni ñii kat wóolu nañ leen dénk leen jàpp naa ne ñëpp dañ ci war a jàpp ma euh, nommé ministre ma am suma plan de prise euh, plan bu ma tëral ne nii laay jëlee ministère bi ba ma déggee syndicat yi dama dagg lépp recevoir ñu waxtaan daanaka ñoom laa njëkk ñu waxtaan ba définir benn plan de travail mooy nan la liggéeyee ba ñu jébbal premier ministre loo xam ne boo gisee xam ne lii mën nañ ci tënku avancé ci ba premier ministre engagement ne su ngeen liggéeyee bu baax dans quarante cinq jours naa leen recevoir maa ngi leen xaar ci liggéey boobu ba ndax kat liggéey moom foog mu am ndax revendication yi buñ ko évaluer toll na ci vingt et un milliards de francs CFA laaj bu toll noonu ci jamono ji laaj na waxtaan